boo xam ne da nga koo jël teg ko ci sa nax su bakkan ndax damaa am doole ndax ñi nga xam ne ne ñoom ñooy force de l'ordre yi nga xam ne ñoom ñooy sécurité sécurité doomu aadama yi sax dóoruñu kenn saagooñu kenn dooruñu kenn duñu rey kenn duñu jël ay ay ay li nga xam ne moom mooy arme di ko teg ci ay doomu aadama ndax lan damay politique ndax lan kii laa àndal mm. am nga droit yow nga faral ku la neex nga ne keneen du faral keneen loolu amul fenn munoo toog nga ne yow diw laa faral mm. moom lay àndal waaye keneen du faral kenn mm-hmm. ku fi ne Sonko ma def la nàngam man nag fii laa ànd xam nga ne loolu noonu bu def nii Amadou Sall mi nga xam ne ne dafa mature di jël di def lu baax macha allah di xool ci baayam di def social kon kooku sax du ko ko def loo ngay jël jaas di jaay bandi gis nga wuyute ak bandi yooyu du bandi sax xam nga lan laay wax yooyu ay va affaire de vagabond la ay bandi salte mm-hmm. ndax bandi dëgg da doon bandi cerveau sa cuukeel di mbaayin ngay def sa bopp di dox loolu mooy bandi mais yooyu nag affaire da wëyu la affaire da wagga la mm. di summeeku di wanee na yow dañ laa fiiri di wax la wanee na yow dañ laa taraase di génne ay jaase di dof dof ndax la loolu daray na jaru ko mhm. yow boo nee der ci àdduna àdduna bépp dañ la war a déglu ndax yow messager nga yow nit ñi référence nga da war a xool ñi nga xam ne ñoom ñooy def lu ñaaw nga taxaw tey woy corriger leen ba delloon leen ci société bi mhm. waaye pas moom li muy def nii dëgg la dafa ci jimba ngóone yi euh, en deux minutes wala une sax euh, sa micro taal ko taxawaayu Mame Matar Gueye donc ak vraiment ni mu taxawee ci affaire dof ndey bi waaw xam nga Mame Matar wax dëgg yàlla taxawaay bii dëgg-dëgg taxawaay bu rafet la parce que askan bi dama gis boobu ba léegi ñu si bëri ñu ngi génn di wax affaire yooyu nangam nangam parce que Mame ñi mu daan plainte ñu si ëpp ci wax lañ daan yem mais kii dafa jëf ñu gis mhm. mu génn euh, plainte ko yaa ngi dégg mhm. mais li may wax euh, ginnaaw biñ ko jaajëfalee ba pare parce que wax dëgg yàlla euh, ñun jeune jeunes yi fi nekk mhm. bu fekkente ni maam Matar dem na ba gën leen a xam lu rafet. Mhm. di leen teg ci yoon saa su nekk. léegi suñu magi ëllëg nan la ñuy mel Bàmba. Mhm. waxa rek. Mhm. parce que kon léegi bu mag ñi demee ba jeex kon ñi fiy des nan lay demee. ba pare ma wax la dara Amadou sàll bi nga xam ni ñoom moom la ñuy mbuboo ak di ko sàngoo social. social est-ce que xam nga sociale Bàmba. bu fekkente ne dañoo jël nit jox ko ay Jakarta. jël nit jox ko xaalis. Mm-hmm. social du loolu du social est-ce xam nga lan mooy social. Mm. social xam nan ngay def. Mm. fexe ba nit ki di liggéey loolu mooy social. mais social boo xam ne xaalis lañuy yëkkati bàmba jox la bu ëllëgee ñu jox ko sa moroom. social dëgg dëgg dëgg bi nekk social te nga xam ne moom moo mën a soqali réew bàmba xoola du xaalis bu ma lay jox damay fexe ba bàmba yow nga am foo xam ne boo xëyee xëy fa mën a faj say aajo bay faj aajo yi keneen. parce que réew mi boobu ba léegi. soci koo wax mu ne social koo wax mu ne social mais social lan mooy social ngóode bu dee tay lii dañ la koy jox suba ñu jox ko sa moroom jox keneen ak keneen yu kenn xamul ba pare ndax ñoom dañoo mës a gis Amadou Sall yor sémmiñ di du kenn ne Amadou Sall moo ma dóor sémmiñ waxa rek moo ma jam est-ce que mës nga ko dégg <laughs> mais Amadou Sall bu fekkante ne ñu li ko nit ñi di jiiñ ak yiw la hmm. même warul sax ak yiw la lan la ma jam Amadou Sall jam nee nañ buñ ne buñ bu ñuy wax sax dañ naan Amadou Sall jam na diw ay million mhm. ku la jam ay millions waxu la nga jamante ji. dana la nga dund du dëgg. mais jam ay millions ba tax na yow millions yooyu yëngal la nga defe ne dalaa jomb. Mhm. yaa ngi dégg ba tax yow ngay jóg. Mhm. di dem attaquer ay nit pour jam leen yaa ngi dégg loolu naay sut parce que keroog wax na njaay génn tontu ko. moom ak njaay du tontante gis nga réew mi du réew moomu. te réew mi sampewuñ ko noonu. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais li ma lay wax rek moo fi nekk dama ne la xoola képp koo gis ndija mu am ndijaay yaa ngi dégg am fi juróom-ñaari maam yaa ngi dégg. Mm-hmm. du def loolu ci dëkk bi. ñu ëpp ñuy trouble ci dëkk bi amuñu fi juróom-ñaari maam amuñu fi ndijaay. d'accord merci boo amul ndijaay nag lu la neex nga def ko fa. jërëjëf wax dëgg yàlla euh, merci beaucoup jërëjëf ñu ngi koy euh, gërëm Mame Matar aussi euh, très belle intervention tu as raison jërëjëf. te ba pare li mu woote nii nañ ko ci teel a si. ndeysaan macha allah yaa ngi dégg. macha allah ah. yàlla na ñu fi yàlla yàggal suñu kilifa yi. am na solo loolu taxawaay bi. alors ñu ñëw ci beneen cas boo xamante ne bii donc par rapport ak défilé du 4 avril bi nga xamante ne bii weesu na on a vu que. tey polémique bi des juste après défilé 4 avril bi mooy Macky nuyuwul Idi Idi nuyuwul Macky te on a <laughs> on a on parlait de mburoog soow diggante Idrissa Seck ak ki nga xamante ne bii mooy Macky Sall mburoog soow ba ñu nuyonteewul yaakaar naa ni soow maa ngi bëgg a tàqalikoog mburu mi quand euh, ci défilé 4 avril bi et leneen lu ñu ciy waxaat bëri na ci 4 avril dañu ciy des wax ci parce que Barthélémy Diaz on a vu que moom ñëwul ci euh, ñëw na quand même euh, ci euh, défilé 4 avril bi loolu metti na ñe yenn opposants yi nga xamante ne ñoom dañoo décliner l'invitation du président Macky Sall mais ci biir 4 euh, avril bi ñu gis ici li fa xew yëpp Idrissa Seck dàq également premier ki nga xamante ne bii moo nekkoon vraiment Yankhoba Diattara donc nekk ministre du sport ñu dàq ko moom itam ci parti réew mi tey gis naa ko sax ci benn déclaration mu ne dafa def erreur dafa def erreur idi sanctionné ko donc moom d' accord na quand même ci erreur bi nga xamante ne bi def na ko idi na ko parce que erreur bi mu def mooy rek défendre ne troisième mandat warul Macky Sall donc looloo tax euh, troisième mandat dafa Macky Sall daf ko war a def loolu la ko idi dàqe alors seen est un peu paradoxal bu ñu gisee Idrissa Seck ñu ne Macky Sall la àndal ba pare dàq koo xamante ne bi dafa wax ne moom troisième mandat dafa war a am c' est paradoxal c' par paradoxal donc Jimbori naka la ñu mën a jàngatee loolu waa xam nga man tey jii ba Diattara tey li ma déggee communication. Mhm. xoola ba si boppam def na def na loo xam ne politicien musu ko def parce que li mu def te politicien musu musu ko def mooy waaxuwaat ba ci sa Seck ne ko maa ngi jégalu ba pare poste bi nga ma fal dindi ma ci nga def ci keneen mais. est xam nga ñoom Idi ban jàngat lañ war a def ci Yankoba Diassara mm-hmm. Idi mat na maam ba Diassara mm-hmm. mais ba Diassara dafa ñëw dé dégager benn façon jikko boo xam ne sénégalais noonu lay mel. xam nga tey lii moo lay wan ni réew mi il est temps pour ñu jox ko xale yi ñu yor ko parce que booy seet niveau intellectuel bi nga xam ne nii mu ngi dégager te te arranger réew mi ba xale yi jóg mu jaral leen lu nekk xoolal Ousmane Sonko. tey Yankoba Diassara butee saañu butéelam bi xeeñ na loolu parce que tey mu ne noo kii sama papa la dama ñëw def naa erreur mu sanctionné ma te si saa si dindi na ko ba fal fa keneen moom tamit mu waxaale ko ne ko jëlal sama poste def ko keneen yàgg nañoo fal nit ministre. mu xëy wax lu ko neex nga koy wax mu dem ak poste ba ba pare bàyyi la teg. léegi lu tax Macky xam nga mburu xam nga mburu mburu mooy Idrissa Seck mburu xoola mburu léppam calcul la mburu lépp lu ko dal calcul la ko ko teg mm-hmm. mburu dafa yaakaaroon ni ba muy dem si Macky sàll xam nga lii Sonko doon est-ce que xam nga mburoo ko ko def mburu Idrissa Seck parce que mburoo wàññi dooleem mburu déedéet mburu moo nekkoon deuxième position mm-hmm. ba mburu di dem yaakaar ni nit ñi ñàkk nañ fayda ñàkkaayu fayda gu mel ne gafag ak cox pour ànd ak moom dem ca Macky Sall ndekete mburu bi muy dem moom doo nga dem yaa ngi dégg moom doo nga dem. Mhm. ba mu demee nag ñi nekkoon ci mburu ñoo wëlbatikuwaat toppi Ousmane Sonko. d'accord wante sa Seck tey. Mhm. réew mi lépp lu naqari waa réew mi. waa réew mi Idi war na Idi bu toogoon fi mu war a toog war na leen koo mën a fajal. Mhm. ba pare sa Seck bu jaaroon yoon rek damay wax de fii mu yegg si nii di dàq dara mënu koo jot waru fi woon mën a yegg si xoola moom romb na réew mi daf day wut réew mi romb réew mi bu yàgg. <laughs> day dëppaat rek. waaw waaw déedéet xoola chaque jour day dem dëppaat. day dem dëppaat. parce que gis nga ñii idit di di topp. barke rasulullah Idrissa Seck bu toogoon fi mu war a toog ñii ñoo war a ñëw këram di ko laaj ñu ne leen day nelaw toog leen ba mu yeewu wax ak yéen gis nga xam-xam boo mën a am te xam-xam boobu am xamuloo noo koy utiliser ba pare muus ba mu ëpp baaxul. d'accord dafa muus ba mu ëpp baaxul calculam lépp la ñu koy bañ a nuyoo di ko rombak tey mu def commu xoola keroog dafa ne damay def communication damay def conférence de presse une heure pile xoola une heure cinquante huit idi fomm ñëpp di installé mu fomm ko mel ni moo leen jox paas xam naa xam naa mburu bi mu ko bëggee def est-ce que soow woowu ko yaa ngi dégg mu dellu ginnaaw yaa ngi dégg xoola dafa am lu xam ni ku war a njiite réew loolu nga war a incarner parce que gis nga njiit waxu doo yàlla de mais dafa am foo xam ne nii da nga faa war a nduróog yàlla gis nga njiit boo gis muy am lu ko naqari comme nga toog yow nekk njiit ngóone am lu la naqari si Ousmane Sonko am lu la naqari si Bougane Gueye am lu la naqari ci sa Seck am lu la naqari ci keneen ak keneen rek mato njiit yàlla mi la sàkk gis nga loo xool ci nit ba mu naqari la ngóone moo neex yàlla ba mu bàyyi ko fi muy dund. mais tam lu ko nuyu ko ko invité. non mais xam nga ma wax la benn affaire tamit nga xam ko ñoom si ñoom loolu image boobu rek dafa rafetu d'accord euh, c'est bon ma ñëwaat euh, Ngoné le fait ñu romb ko nuyuwuñ ko ci défilé bi yëpp mu créé polémique boo xamante ne bi euh, Sall ngaar itam est-ce que war na romb idi bañ ko nuyu ñi mel mburoog soow bu ñu melee ne mburoog soow moo leen wan ne mburoog soow mi du dëgg mburoog soow mi du dëgg mais dama yaakaar na lu toll ne fête de la nation bis bi Sénégal jotee boppam bis mi réew mi jotee maanaam indépendance am bis bu buumu njaam yi doge. mais ki kay bu ñoom Sonko ñëwoon. moom laa wax bis bu bis bu buumu njaam yi njaam yi doge ñoom yaakaar naa ne foofu buñ fa taxawee idi bu fa taxawee sax ay nuyu na ma ak ay nuyu ma yóbbu leen fi. mu ne da war a ñëw takk sa ndigg ba mu dëgër yor sa drapeau wan ne ne man réew mi rek moom fi ñor moo ma ñor. Mhm. Macky Sall yow yëkkati woo ma. Euh, Sonko yëkkatiw ma keneen yëkkatiw ma xam nga sa Seck bu la moo ko dal calcul bu bëri nguur gu ñëw mu ànd ak moom il sa bu gëmoon boppam tuuti reposé taxaw nga xam ne dina am dara waaye xam nga lan la nguur mu fàllu nga ñëw ànd ak moom di calcul calcul bu bari nag da ngay trouver da ngay trouver rek wala nga faussé ba zéro du dëgg Idrissa sekk lan la war a def mooy gëm boppam nga ne tey tey nga ànd ak Macky Sall bu subaa nga ànd ak kee bu teyee nga yóotu amoo ili nga samp sa bopp xool Sonko di xale bu ndaw mujjee ñëw réew mi saf saf réew mi réew mi bëgg ko la moo ko waral bëgg boppam dëggal boppam wóolu boppam muy metti metti metti ñu koy affronté mënoon na dellu ginnaaw ne kon ko fu mu toll nii damaa samp sama nënd mu metti bàyyi ma arrière dem ànd ak pouvoir mais ñu koy xoxotal di ko di ko ñoñoñal mu affronté gëm boppam idi kan moo ko ëpp xam-xam idi kan moo ko ëpp kattan kan moo ko gën a man a bëgg réew mi na am boppam na gëm boppam am fitam am jàmbaaram te doxal boppam. moo ko waaye li ko li ko Macky Sall def noonu. waaw li ko li ko Macky Sall def noonu nuyu ko xëy na ca moom la rek ndax nit ki moom buñ la buñ la yabee ba buñ la fekk humilier leen xëy na yow yaa ko doxee mais bu gëmoon boppam rek kon yaakaar ne bu ñu naan cinquième président wala bu naan quatrième président moom moom lay doon. merci eh, beaucoup eh, Bamba. Mm. Euh, dama dama bëggoon wane dara rek xoola su ma sañoon ah, danga may may photo Marème fay Sall rek ma wax la gaay si lu ñu nekk xoola nee nañ bisu indépendance la. réew indépendance bi sénégalais yi ñoo ko moom xoola ci gis-gis gis nañu ci gis-gis ñu romb ko nuyuwuñ ko si gis-gis muy lu muy lu ñaaw léegi bu bi ñu ñëwee toog ñoom ñëpp benn sénégalais laa ñaari sénégalais laa fa gis est-ce xam nga loolu ñaari sénégalais laa ñaari sénégalais laa fa gis est xam nga loolu xoola ngóone benn sénégalais bi xam. Jimbori Jimbori est-ce que xuloo am na sax. waaw waaw mais est-ce sax xuloo am na ñàkk nuyoo boobu est sax xuloo am na waaw waaw mais loolu mën naa doon sax ay kele. waaw mais tamit dafa am ñaari sénégalais laa fa gis. fen bi ba mu daj ñaari sénégalais laa fa gis xam nga ban sénégalais laa fa gis. Marème Faye Sall do xool leen li mu sañse garambu bu la bàyyi def musóoram toog boo ko xoolee moom dong ngay gis senegal nga xoolaat Barthélémy Dias. yére olof la sol ñoom ñëpp costume mel ni indépendance su France. ku jëm <laughs> anniversaire. wax ñoom ñëpp ay costume lañ sol ba pare Bamba dama lay laaj bàmba lan mooy indépendance Bamba loolu laa la bëgg a laaj indépendance xam mooy lan ngóone. moom sa bopp moom sa bopp mais léegi ndax ñun ñi nga xam ne nii ñun la ñuy defal feet bi. Mhm. waa ñun gis nañ suñu bopp wala gisuñu suñu bopp Euh, merci beaucoup waxa rek naa ni euh, Jimbo donc dañuy tëj kaw bu neen yoon bu ñuy di indépendance kii nañu maye garaam bu comme ni ko Ablaye Wade ni mu daan maye ñetti morso yi koppati ba ca kaw ñoom ñëpp sol yére yére Sénégal mais ñëw yow yow yaa ngi sol ay costume ñëwaat ay français lañ fa làkk ba fin. dañuy tëj kaaboo bu jéem a dugg ci beneen kaa boo xam ne yaakaar naa ni kaa bu danse boo xamante ne bii xam nga ñun waa Feeling Dakar chaque jour ñu kaasuñu bopp. Mm, ndax dinañuy topp kaa moo tax bu kaa amee ci biir kër gi duñu ko daw dañu koy kaa directement.